Elage Sidi jàmm ci xibaar yi yéene kaay yi nga xam ne nag moom moom la ñu seize gendarme yéene ko war a kay du ñu xamal ne moom kay jamono ji ak lu mën a xew école boobee kay jamono ji daanaka mooy coow ci réewum Sénégal critique yéen kay dañu xamal ne Serigne Mbaye Sy Mansour wala xalif général des Tidianes tàmbali nag nag di xew daal bi nga xam ne daal lépp loo xam ne nag jëm na ci règlement intérieur école bii nga xam ne moom la waxtaane ci réewum Sénégal ak lu mën di xew daal kilifa yi daal dàq nañ toll ci ji ñaar fukk ak ñett ci ay jigéen ñoo xam ne daal ci école boobee lañ doon jànge tey nag la tax ñu dàq leen ay muuraay goo xam ne daal la tàmbali ñu ne leen loolee du fi amee loolee tax nag jamono ji nag ma ngay amal ay waxtaan waaw di ngir xool lépp loo xam ne nag jëm na ci école boobee jafe-jafe yi nga xam ne daal lañuy jànkonteel ñu daal di koy saafara Moustapha Diakhaté ci yéeni kaay bi di ñu xamale jamono ji kay maanaam lenn rek mooy saafara si maanaam yaatu na ci réew mi ndaxte waa Medina Baye ñoom tamit yëkkati nañu kàddu jëmale ci lépp loo xam ne ndax loolee daal saafara dina ci am kaay di ñu xamal ne naa kay jamono ji taw yi nga xam ne daal jot naa wàcc ci ndax dëkk bu tooy xef yéene kaay bi dañu xamal ne xoolal Dakar ak ak banlieue ba mbaaw foofee kay jamono ji ndox ma ma nga fay tëmb ndox di laajte nag maanaam daal anam milliards yi nga xam ne daal dañu ko jëloon ne dañu koy dugal ci yooyee la ñuy laaj te keneen koo xam ne nag xëy na di laajte muy le soleil yéen a kaay nag la muy laajte moo di ana avion njiitu réew bii nga xam ne daal moom la doon yor maanaam daal avion la boo xam ne jamono jii déggatuñu ko gisatuñu ko ah le soleil kon boog ñu delloo leen laaj bi ba baa ñu koy gis